al ba aaya bi jeex fa ajaaba radiallahu taala anhu bi qawlihi cheikh tijaani mu ne almuraadu indi annama yanzilu ala abdi min an aw min an niami fa huwa min allah cheikh tijaani mu ne man daal mbir ci man mooy lépp loo xamante ne wàcc na ci jaam bi ci ay xéewal ak ay baax mu ne loolu moom ci yàlla la jóge ko laabi bi sababin min jihati nafsihi mu ne amul benn sabab bu tukkee ci jaam bi ngir yàlla mën ko wàcceel ay xéewal ak i mbaax mbaax amul benn sabab mu ne wa amma maa yusibuhu ne waaye li nga xamante ne nag dina dina dina eh, dal jaam bi minal masaa bi ci ay musiba lii dal jaam bi ci ay musiba wal qaxti wal razaaya dégg nga lu mel ni ki maral lu mel ni ki itam ba yu rëy dégg nga mu ne fawoo bi sabab bi sëy aatihi mu ne loolu sabab bi lu koy def mooy mbon yi nga xamante ne jaam bi mu ngi koy def kon jaami nañu ku mbon yi parce que bëriwaan na jafe-jafe su amee lu mel ni ki maral lu mel ni ki feebar yu metti yi lu mel ni ki deegu bëri gi su boobaa dee gis ne dégg nga sabab bi lu ko def mooy mbon yi nga xamante ne mu ngi gongeekoo ci nit ñi moo tax Cheikh Tidiane mu ne foofa bi sababi say aati mi saddarat si nafsihi loolu li koy sabab mooy ay musibaam yi nga xam ne mu ngi koy def mbon mbon yi nga xam ne mu ngi koy def yu gonga ko ci boppam moom nit ki bi xalabatil mayli ilal hawa mu ne ci nooteel jeng jëm ci bànneexu bakkan yaa ngi dégg loolu yëpp li ko yóbbee mooy sa bànneexu bakkan noot la ba nga jeng jëm ci ngay def rek ay ñaawteef su boobaa boo demee ba gis ay musiba di dal loolu xamal ne yow yaa liggéey mu ne wa bi hukmil qadri saabiq mu ne ci atte kattan ak yàlla bi jiitu fi ilmi ci xam-xamam wa haada mu ne jëm ci lii nag adaafahul xaqu na ci subhanahu wa taala li nafsil abdi maanaa ci boobu jaam yàlla wax na ak jaam bi di ko ci dollil ne ko qaala subhanahu wa taala yàlla wax na ne fal yaxdiri amrihi nanga mooy tindukuloo yow Muhammad nanga moytandikuloo ñi nga xamante ne ñu ngi wuute ak digle yàlla yi nga xamante ne yàlla dig na leen ko nañ koy topp ñu koy ñuy wuute ak moom ñu bañ di ko def dégg nga an tusibahum mu ba mu leen dal fitnatun fitna aw yusibahum azabun alimun wala mbugal mu metti dal leen mu ne loolu doy na ci ya won wane ne eh, nit ki wala jafe-jafe yi àddina yi musiba yi ngeen di gis ci kaw àddina yoolu yëpp lu ko indee nit ñi mooy nit ñi dañoo toppatu ndigalu yàlla yi yaa ngi dégg su boobaa nag boo toppatu ndigalu yàlla li yàlla waxoon ci alxuraan mooy an tusibahum fitnatun maanaam fitna dina leen dal yaa ngi dégg aw yusibahum adabun alimun wala mbugal mu metti dina leen dal su fekkent ne respecté tu leen sama digle yi man yàlla subhanahu wa taala beneen bi mu ne wa qaala taala mu ne yàlla wax na subhanahu wa taala wattaqu tan dégg nga na ngeen moytandiku fitna benn laa tusibanna alladina zalamu xaas xaasatan fitna bi du dal ci yéen keese nga xamante ne yéen yéen a tooñante dégg nga masalan nga dem tooñ diw fitna wàcc fitna boobu noonu mun na am mu bañ a dal ci yow kese mi tooñ mun na laa laaxaale ñu bëri dégg nga li olof di wax naan xay du yem ci boppu boroom dégg loolu la alquran di wax ne wattaqu fitnatan laa tusibanna laa tusibanna alladina mu minkum xaasatan dégg nga ay Cheikh Tidiane mu ne ay lim jublu ci loolu utruku saaya fi asbaabiha min adawatin wa maasiyatin wa gayrihima bàyyi leen jëf ci sabab yi da nga ci nooneel dégg nga nga xam ne jëfu nooneel am na jëfum mooy yàlla am na yaa ngi dégg ak yeneen yu mel noonu dégg nga na ngeen bàyyi di jëfee yooyu waaw na bàyyi di jëfe yooyu ci parce que su boobaa musiba su ñëwee rek du yem ci yow kese parce que mooy yàlla boo koy def yow kese yow yaa koy def waaye mooy yàlla maanaa euh, tëdd ak jigéen bu la lewut ak yu mel noonu loolu boo koy def yow kese yaa koy def waaye loolu nanga bàyyi xel ne mun na sabab feebar te feebar boobu mun na la mun na wàll keneen su boobaa du la dal yow kese waaye mun nga ko yóbbaale ci ñeneen ak ñeneen waaye mooy yàlla itam njaalo mun na tax ba dootu taw maanaa taw bi arrêté wala taw wàññeeku su boobaa lim daan taw léegi léegi tawatut ko ñu ñu pine leen ci taw te taw bu ñëwee du kenn rek lay tawal ñu bëri lay tawal su boobaa nag loolu yow mi sabab nga mooy yàlla ba taw bi wàccatut musiba bi yematut ci yow kese waaye dal na ci ñu bari kon ñu bàyyi xel ne musiba waxtu woo koy def wala mooy yàlla waxtu woo koy def de nga nanga xam ne mun nga loraale ñu bare bare bari ci loolu noonu dégg nga su ko defee foofu la masala bi jeexee incha allah ba suba. allahumma salli ala sayyidina muhammadin qadril muxtaar azim abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fonnome war ngay sant yàlla ñun lay digil gëstaloodam sidi baram